asalaamaaleykum mbokki internet yi daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 dañu koy tàmbale ak suñu gaynde yi nga xam ne ñoo ngi ca Turquie muy U17 yi xam nga dañoo war a jouer ci li nga xamante ne mooy coupe du monde ñu war a jagleel ñii di amam fukki at ak juróom-ñaar jëm suuf waaye nag ci jogante yooyu la gis nañu ne suñu gaynde ca Turquie la ñuy jaar ngir daal di fay amal benn tournoi bu gàtt ngir waajal seen bopp turki googu nag wàcc nañu fa Amara Diouf ngeen di gis noonu ak ki nga xamante mooy Serigne Fallou voilà ak gaynde ñoom ñëpp ñoo ngi foofule lañu war tàmbali seen match bu njëkk ndax bu ñu xoolee ñetti match seen bopp Panama le lañu koy jouer le 22 octobre suba waaye nag bu ñu demee ba le 25 ñu demee waat match bi ci des seen diggante ak boobu mooy match bi ci mujj ñetti match yooyu nag la ñu war foofu la ci Turquie balaa

ak 65 minutes du moom rek moo marqué tey ki nga xamante mooy Mame Baba Thiam moom itam dal dinay dugal son sixième but li nga xamante mooy Super League bu Turquie voilà juróom benn bal dal dina koy dugal moom kii di Mame Baba Thiam xam nga moom sax amoon na jamono daan ko woo ci équipe nationale bi waaye nag temps moom gis nañ ne si xaw na ko feral waaye mu liggéey nag mu liggéey de tey jii dal dinay dugal juróom benneeli balam ci li nga xamante ne mën nañu wax ne fu ñuy dajee dafay metti waaye jamono bi nag ñu gis ñi di waa Arsenal seen équipe bi taxaw ba nga xam ne ñoo fi dooroon Man bu yàggul Chelsea Football Club nag nekk ci defaraat ak di régler ay mbir yu sew sotteegul waaye tey jii wane nañu lu leer de ndax match bi dee bu ñuy xool ñoom sax ñoo njëkk a dugal 2-0 woon Arsenal ñaari bal ci dara voilà biit bi nga xamante mooy njëkk ci match bi nag ab penalty la kii di Cole Palmer Palmer Chelsea jiitoo woon Arsenal di sàggan nag di sàggan ba ñii waa Arsenal dal leen dab mu mujjee bi partout Declan Rice boo marqué pour Arsenal ci soixante-dix-septième minute Trossard bi ci des ci quatre xam nga ne kon Chelsea seen liggéey mu ngi ñëw sotti kon jamono bi équipe bu mel ni Arsenal ak jamono bi ni mu taxawee ak li muy wane foofu ci championnat bu Angleterre Chelsea dal ñëw témbo ak moom ñaari bal ci dara kon mel na ni ñu ngi ñëwaat waaye xëy won man nañu am li nga xamanteni moy jafé jafé ngir dabé ci jogante googu waye lo ci mëna dégg dal benn poñ lañu démé ñom ñoom waa Chelsea football club Nicolas Jackson wax naa leen dugg na ci li nga xamante ne mooy match bi 66 la dal di dugg moom xam nga titulairul dañ ko doon xaarloo mu dal di dugg ci 66e kon moom itam daal dina participer ci li nga xamante ne mooy match boobu ñu doon am muy derby boobu doxoon diggante Arsenal ak football club yeneen i match nag amoon na foofu la ci Angleterre bokk na ci beneen derby bi doon dox diggante Everton ak Liverpool boobu sax mooy njëkk exceptionnel bi moo daal di marqué beneen bit ci ab penalty muy 2-0 ñaari bal yëpp kii di Mohamed Salah moo ko daal di dugal. kon mën nañu wax ne jamono bi match yi nga xam ne joué ko moom Mohamed Salah ci English Premier League am na ci lu toll ci sept ak quatre passes décisives voilà kon fukki bal ak benn mu ngi ci tànk moom Mohamed Salah ci match yoo xam ne joué na ko ak Liverpool di ndoorteeli saison bile. waaye du yooyu rek moo fa xewoon ci ay jongante am na yeneen match yoo xamante ne xewoon na tey ji foofu la ca Angleterre bokk na ci Newcastle United bi nga xam ne tey ji dafa jàpp Crystal Palace wulli ko ba mu noy 4 la ko dal di dóor waaye ñi nga xamante ne dañu Brentford dal di dóor ñoom itam voilà du toll ci seen digganteeg Burnley la woon ñii di Brighton euh, Brentford ñoo ci am lu toll ci ñetti bal ci dara waaye itam ñu gis ne ñi nga xamante ñoo di waa Nottingham Forest ak Luton Town dañoo match nil 2 bi partout ndam demul ci ñaari équipe yooyu la bu dé Manchester City nak tay ji mom mo dal di door ñi nga xamni wa euh, Brighton ñaari bal ci ben ki nga xamanteni moy Erling Haaland ak Julian Alvarez ñoo marqué but yoy nga xamanteni City am nañu ko Ansu Fati mo dugal but bi nga Brighton am nañu ko Ansu Fati bi nga xam dañ leen ko abal mu joggé ci Barcelone dafa dugg manam ci comme remplaçant waaye bi mu duggé dé ben but bi nga xam ñom am nañu ko mom moko dal di duggal ki nga xamanteni nak moy voilà Erling Haaland mo marqué ci 19e minute te lu ko jiitu ki nga xamanteni moy Julian Alvarez mo ñëkkon dugal ci 7e minute mom mi nga xam jamono bi yaramam dafa tang mom Julian Alvarez day duggal rek ndax bu ñu xoolee moom jamono bi am na lu toll ci 7 buts ak 5 passes décisives moom Julian Alvarez kon fukki bal ak ñaar moo ngi ci tànkam bu dee Erling Haaland nag mën nañu wax ne moom 9 bi ak 2 passes décisives daal na koy am voilà kon moom itam am na lu toll ci fukki bal ak benn ñaari attaquant yi daal mën naa wax ne ñoo ngi ci forme ku nekk ci ñoom yaa ngi dugal yaa ngi def ay passes muy Erling Haaland ak kii di Julian Alvarez kon ñoom ñaar ñoo jox ndam Manchester City Hadi bu ñu xoolee nag li nga xam ne mooy tableau championnat bi nii la taxawee Manchester City gannaaw ndam li mu am ak match nul bi nga xam ne Arsenal am na ko tax na tableau bi dal di soppeeku bu ñu xoolee de fi ne nii Man dafa yéegaat ca kaw de am na ko Arsenal moom itam am na toll ci waaye nag xam nga ne moo gën a baax ci li nga xamante ne mooy maanaam goal différence waaye nag ñii waa Liverpool jamono bi yëg nañu de ñoom ñu ngi ci buñu xolé ñoom ak Arsenal ñoo tollu ci walum goal difference victoire dal mo koy tax a yéeg kaw kaw ñom wa Tottenham kon ñi wa Man City dañ leen abal ci kaw rek ñu fanaani fa su defé buñu xeyé suba ñu xol nak la yef yi taxawé léegi buñu xolé nak yeneen match yi nga xamanteni xewon na ci yeneen dëkk yi bokku na ci Espagne gi nga xamné tay ji ñu ngi doon xaar match bu reuy bu doon dox digënté FC Séville ak Real Madrid dañoo match nil de un bi partout jogante gu metti sax ku metti FC Séville dal seen coach bu bees bi melni amna la lu mu fa indi tay ji dañu lakkal ñi di wa Real Madrid 8 8 ben bal ci ben la jeexee te benn bit bi nga xam ne Real Madrid am nañu ko dee benn but contre son David Alaba moo ko marqué ci minutes après maanaam soixante-dix-huitième Dani Carvajal moo ñëw égaliser ci benn mbëkk boo xamante ni ab corner la la mu daal koy mbëkk mu dugg moom kii di Dani kon ñaari bal yooyu la moo xew ci jogante googu muy un bi partout diggante Séville ak Real Madrid bi nga xam ne du yàgg dara dafa war a jënoo ak ñi di waa Barcelone ñii wa Real Madrid waye comme ni ngeen ko xamé dañu match nil ben nak sevi. ci Séville gi nga xamné dañu changer coach bu yagul kon ñom seen li nga xamantene moy point bobu dina gëna dalal seen xel ci match yi nga xamantene moy ñew ci seen kanam ñom wa FC Séville bu nak France jamono bi man nañu gis né Paris Saint-Germain mom da doon jouer digënté mak ñii di maam Strasbourg waye dañ ca am ndam ñetti bal ci dara voilà dañ leen wulli ba ñu Strasbourg da ñom wa Paris nak fimni ni ñi ngi wara jouer seen digënté ak AC Milan ci walum Ligue des Champions kon ki Luis Enrique la mo doon ragal amul gaay yi sàggane wuñ match bi jouer nañu gagné nañu Mbappé sax dugal na Solaire ak ki nga xamanteni moy mooy Fabien Ruiz ñoo dugal ñetti bal yi nga xamne ñi di Paris Saint-Germain am nañu ko war a nak ci Ligue des Champions fan yile seen digganteeg AC Milan fële ci Arabie Saoudite gis nañu né Cristiano Ronaldo tay ji dafa dugal benn coup franc direct Sadio Mané mom tam joué na waaye Cristiano Ronaldo ak Talisca ñoo marqué but yi nga xamne ñom wa Al Nassr am nañu ko voilà Ronaldo mu ngi déssé ba légui di ñom nak ñoo ci am dam ci jogante go comme ni ngeen ko xamé Al Nassr ñoo gagné voilà équipe bobu nga xamne mom lañu doon dajal ci Saudi Pro League Bundesliga ba nak mom ki di Serhou Guirassy mom koy toj mom dé marqué na lu ci 14 bi manam fukki ak ñeent dugalagum na ko de ci juróom-ñetti bëccëg képp maanaam huit journée la ñu joué mu daal di bi lii de mën nañu wax ne yombul de nee daal mooy premier joueur ci histoire bu commencé def ci Bundesliga lu ni mel mosul am joué juróom-ñetti bëccëg rek marqué bi kenn mosu koo def nee ci championnat boobule ci Allemagne bu dee ci Europe képp nag rawatina top 5 ligue yi muy juróomi championnat yi gën a mag nee nañu Ronaldo lu ni mel marqué bi ci li nga xamante mooy juróom-ñetti bëccëg képp waaye kon Serhou Guirassy jamono bi mooy ki ciy topp bu dee Europe laa lay wax de joué juróom-ñetti bëccëg marqué bi waaye daal bu dee ca Bundesliga ba moom mooy kenn ko ko morsa def jamono bi le mu ngi toj foofu nga xamante mooy championnat boobu le ki nga xamante ne mooy Ekitike nekk foofu nga xam ne mooy ca Paris Saint-Germain moom nag jamono bi kii di Samuel Eto'o da Gambi te ñom nak seen match bu la doxon seen digënté Gambi ci kan bi wessu ñoko gañoon way sonno dëgg lañ ci defoon amon nañ ci de motax tax gëna renforcer seen équipe la ki Samir Eto'o dal di bëgg motax tax Ekitike bi nga xam ci Paris Saint-Germain la nekk mom la bëgg dal di yobbu ba ñu sukkandeko ci kayti xibaar kay waxtaan ak mom dal ngir jëm ko convaincre bala kan bi ngir mu dal di dégg mam join équipe bobu di Cameroun ngir ñu wara mëna jouer ci li nga xamanteni moy kan ñu wara amal ci Côte d'Ivoire lolu moy li fi gënon fess kon ci kayti xibaar kon Sport 220 the best sport news channel